feebar bu ñuy tudd ci réew mi ak ci àdduna bi di coronavirus am na nag ay njeexantal ci njënd ak njaay mi fii ci marché centrale bu Kaolack fii nag eh, jaaykat yi nañu daal gisatuñu seen bopp ci seen eh, wàllu yëngu-yëngu lu ko sooke nag mooy clients yu bëri daal eh, dematuñu foofu foofule ca marché centrale bu Kaolack. avant ñoo wax bon. corona bi moom da doon dox nice quoi dañ doon jaay carrément mais depuis barki démb daal seetlu nañ ne affaire bi dafa wàññeeku gisatoo clients yi parce que d'habitude ñu doon jaay ñu dëkk ci lu may gars yi ñëwatuñu wax ñu ne gars yi tëj marché yi moo tax affaire bi daal doxatul quoi dañoo toog di xoolante gars yëpp a fi yem da ngay mel ni sax gars yi instant yi ni da nga nekk kër ga quoi marché bi dafa géey quoi da koy sentir carrément waaw laal nañu trop trop trop waaw trop trop trop trop nga doon xëy sax ay si balaa 6 heures sax nga jaay ay 30 mille 40 mille balaa ngaa ñibbi nga jaay ay 50 mille 60 mille mais tey bañ xëyee ba tey presque ab 10 mille francs sax mënuñ koo jaay bu mat kon xam nga ne carrément affaire bi laal nañu quoi tey yaakaar naa ba ma xëyee ba tey li ma jaay ëppul 12 mille njaay mi doxatul moom lañu ñu xamle ba noppi nag di ci dolli ne lu ko waral daal mooy luuma yu bari dañoo tëj fii ci diwaan wi loolu nag eh, tax na ba ñu bari ña fa doon dem foofu la ca marché central bu kaw Kaolack eh, dematuñu fa li ni mel nag indil ay gàllankoor ña fay daan seen doole. xam na mën naa am tuuti wàññeeku rek waa ndax comme coow li dafa bëri ñuy wax affaire feebar beeg yooyu fokk dana xaw a am rek lu tudd. ñun suñu prix moom daanaka amul soppeeku. waaw parce que waaw daanaka soppeeku bi amul solo daal waaw xam nga comme commerce bi moom dañ koo libéré fi mu toll nii mënoo fixé na bagage bi temps lay jar parce que mën ngaa dugg ci magasin bi ñu ne la lii nga dem fee ñu ne la laa te ñëpp benn marchandise bi lay benn commerce bi lay nekk waaw marchandise moo demee noon daal kenn mun koo fixé fenn benn place fi mu toll nii. ligne bi ñu ngi ko jaay ay 17500 waaw 17000 waaw waaw 20 litres bi 17 17000 17500. ci prix yooyu daal euh, soxna si moom euh, donte ànd na ci lu ay naataangoom wax waaye nag moom fu mu wuteeg ñoom euh, kàddu mooy client yi nga xam ne ñooy jóge ci lu yi nee na daal ñoom ba léegi ñu ngi dem foofu la ca marché central bu Kaolack te nag lu ñuy jënd daal amul keneen ku koy jënd. feebar bi comme ni ñu koy waxee rek xam na am tuuti inconvénient suñu liggéey parce que dimanche yi moom vraiment liggéey bi doxu doon parce que dañoo ragal. mais d'après bi kii bi jógee eh, tamit gars yi demb ak tey moom ñëw nañ pour mën a s'approvisionner tuuti parce que de comme dañoo tëj marché lu marché hebdomadaire yi gars yaa ngi commencé di ñëw ndànk-ndànk waaw temps yi passé moom xawoon naa am tuuti rëq-rëq suñu liggéey ndax da nga toog tuuti une journée daanaka li nga doo njaay par rapport ak sa beneen journée bi moom vraiment ça n'allait pas mais al démb ak tey vraiment alhamdulilah rabil alamin dañoo augmenté li ñuy jënd parce que comme dañoo tiit ne ñoo ngi naan marché yi sax dinañ ko tëj dañoo xalaat ne bu ñëwee fii tamit dina tëj ñoom ñu jënd dañ ci ko seen kaw na laa suñu secteur informel bi moom vraiment waaw laal na ko de laal na ko lool waaw même produit yi sax dafa cher waaw laaj fi mu ne dafa yokk lépp dafa yokku waaw laaj moo ngi woon 1300 léegi 2000 ba si 1800 waaw xam nga foofu yokk na trop kon nag mi ngi noonu coronavirus bi ak jafe-jafe yu mu indi ci njënd ak njaay mi fii ci euh, marché central bu Kaolack